mbokk yi bàyyi xel seen chaîne préférée seen njëriñ TV dal leen ak jàmm seen vidéo bu yees bi tey nag dañu dellu si rek jàngat benn jàngat bu gàtt waaye nag jàngat bi day ànd ak sensibilisation maanaam jëmale ko ci bisub ajuma bi nga xamante ne bëgg nañu génn massivement moo xam fu waay mën nekk ci biir réew ak ci bitim ngir wax ma la dénoncer rek waaye fexe ba Macky Sall mu neex mu naqari ko mu jóge ci bopp nguur gi nga xamante ne bëgg na fi sax ba heure bu ko neexee mu jox sax taawam boobu di Amadou Sall wala sax koo xam ne Farba Ngom sax lay doon loolu nag askan wi war koo bañ ginnaaw bi nga xamante ne CEDEAO Union européenne américain yi ñëpp ngi bind syndicaliste ku ne wax na ci Sénégal Sénégal ci jamono ji doon gàcce ci bitim réew ndax journaliste yi nga xamante ñoo féete ci bitim réew ña ngay wax lu leen neex jëmale ko ci gouvernement bu Macky Sall ak doxalin bu ñaaw bu nga xamante ne jëmee na ko ci askanam. fàtte la la fal waaye Olof Ndiaye di léebu saa nekk naan ku fàtte la la fal sax folli ko dugg wees tax na. loolu yëpp am na solo waaye askan bi rek ñoo mën a tax Macky Sall deltu na ci mu neex mu naqari ko askan bi yëpp a war a génn massivement bañ a déglu kenn ndax it nag bu fekkoon ne rek réewum Sénégal euh, réew la boo xam ne yoon lay doxal wala réew la boo xamante ne. ay kilifa ngi fa mën a àddu ci li xew ñëpp ne pat amul kenn kenn koo xam ne yëkkati na nga sa kàddu te gis nañu Ousmane Sonko jamono yi nga xam ne mi ngi ci biti kenn tegu ko loxo ñoom ci boppam ñoo ko daan wax wuy ji Macky Sall demal wuy ji waaye itam bul yee fitna ci réew mi demal rek bu sa fal waree jot yàlla dina la fal loolee nag tey ji gis nañ ni mu yóbbee Ousmane sonk wala sax ni askan Sénégal duggee ci jafejafe jafe boo xamante ne tàmbali bi rek ngay xam waaye doo xam génne mbokk yi ñu déglu Babacar Diop Sadikh di Pastef di bokk ci parti Pastef du moins sax fare fare ci Italie. mbokk xel seen seen njëriñ TV ñu déglu kàddu yi Babacar Sadikh Diop daal di dellusiwaat fii Faram Facce la. Idi Idi les Américains dénoncent bande trop les Italiens dénoncent bande trop les Français dénoncent bande trop. les espagnols dénoncent baax na trop ONU dénonce baax na trop Union européenne dénonce baax na trop Nations Unies dénonce baax na trop les syndicats des enseignants syndicat Orange syndicat des travailleurs syndicat des ouvriers syndicat des transporteurs ak lu mu mënti doon rek Serigne Seck ñëpp dénonce baax na trop idi li wër moy bu population bi jugul taxaw mak li mu bëgg lii day am ne vous fiez même pas du conseil constitutionnel sénégalais bu ñu jugul taxaw xamni ñom ñoon wara nanguat sen souveraineté alcorane seede na ni li day jall tranquillement il faut que le peuple souverain jug taxaw té i les français dénoncent français li lii Macky Sall ñoo nekk ñoo ko si dugal français non noonu la def dañuy xam bu taal bi ba pare taxaw na mel ni kuy fay Macky Sall lii mu nekk nii yëpp français yi ñoo ko jàppal tànk mais loolu mooy dëgg loolu mooy li am loolu mooy dégg tey mi ngi mel ni sa kër di tàkk sa kër di tàkk nit taxaw ci ci buntu kër gi wala ci biti ci mbedd bi naan kër gaa ngi tàkk kër gaa ngi tàkk te duggul jëm la jàppale fayal la ko kooku il faut se méfier dama ni peuple bi moo mën a dindi lii Macky Sall bëgg a def peuple bi kese la amul leneen amul sa bu leen may sax conseil constitutionnel temps fi mu ne nii ba mu ko waxee ba léegi chaque jour manifestation yi dafa war a takkarnaase muy mag góor jigéen mag ak ndaw ñëpp ci mbedd yi Macky amatul légitimité wu gouverner réew mi loolu mooy dëgg peuple bu jugul lii day askan bu nekk moo war a mën a sàmm boppam aar boppam ci yëpp loo xamante ne ñu ko koy teg te jaaduwul démocratie ci Sénégal kenn dootu ko waxati ci nguurug Macky Sall démocratie yëpp la ñu salfaañe ak ak yelleefu askan bi souveraineté bi nga xamante ne amoon nañ ko bu yàgg donte ñi fi jaar ñëpp def nañ fi lu ñu weng waaye teewut dañu bàyyoon nit ñi ñu nekk seen jàmm Macky Sall nag ak ñi mu àndal di bum di bumi di faagaagal askan bi di leen toroxal di leen tekk ay mettit yoo xam ne kenn mënul wax kañ day jeex loolee nag pour mu jeex askan bi kese ñoo war a booloo takku ginnaaw bi ñëpp waxee li ci des nag askan bi kese moo ko mën a fajal boppam loolu nag du lu ñuy wax lu ñuy jëf la ndax it Macky Sall gënuñu ndey gënuñu bàyyi ëpp ñu jàng waaye nag du lenn loo tax